yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jullit yi mi mbokki àdduna mbokki lislaam ñoo ngi leen di nuyu baax a baax te di leen ziyaare di jox kenn ku ci nekk rek wàccuwaayam ñu ko sunu borom jox ca fa mu nekk mbokk yi di leen yëgal ne rek ñi ngi tey fii ci eh, daara ji nga xamante ni mooy daara imam saati bi nga xamante ni seen bis bu mag bi nga xam ne yàgg nañ ko amal ñu bisib annuel di tarib alxuraan boo xam ne at mu nekk danañ ko amal donga yi nga xam ne mokkale nañ fii ci daara ji di tari li nga xamante ni mooy téereb yàlla bi ak ñi nga xamante ni it mokkalaguñ bu ko defee it waajur yi daje fi bàyyeekoo ci ay gox yi fasantikoo daal di ñëw ndokkeel si waa daara ji waaye it sagal leen si waaye daal di fekk bis bi nga xamante ni mooy bis mag bi nga xam ne at mu jot nañ ko amal. mu mel ni it programme bi démarré na subaak léegi ñu toolee ko ci ndàngum alxuraan ndax bisub alxuraan la ak yi nga xamante ni yëpp moo ci am ki war a def conférence bi ren nag di Oustaz Alioune Sall mu war te ñu am am solo incha allah bu ko defee dañ leen di ci biir. li nga xamante ni mooy barab bi taataana leen ay kàddu mu jóge ci parent d'élèves yi muy waajuru ndongo yi moo xam góor ak jigéen képp ku ci nekk rek wax ñu li nga xamante ni mooy yëg-yëgam bi mu yëg ba tax mu mën a jël doomam daal di koy dugal ci biir daara bi ngir mu mokkalee fa alxuraan te it loolu di lu am am solo te it ñu ci sonn bépp parent d'élève képp koo xam ne rek indéegoo sa doom ci daara ji ñu lay wax daara jaa ngi nii tëjalul kenn buntam di ngeen gis numéro téléphone yi ak programme yi lépp dinañ ci incha allahu taala pour képp ku ci bëgg jaar rek nga xam fi ngay jaar incha allahu taala bu ko defee nees yi nga xamante ni ñoo tukkee ci waajur ndongo yi jërë mbokk yi gis ngeen ni leen ko waxee woon sànq ci suba dégti li ngeen xam ne mooy tari bi ak thème bi nga xamante ni moom la fi yaa Oustaz Alioune Sall doon traité muy tem bu am solo nga xam ne décortiqué na daara waaye wane na it gone gi ñëw ci daara jom ji mu war a am waaye fàttali nañu daaray démb fàttali ñu daaray tey waaye daaray démb nag moo daan def ci gone mu am jomuk mën a lijjanti ab añ am jomuk mën a lijjanti ab reer ba bu màggi ëllëg yooyu dooru ko jafe oustaz naka nga gisee tey bis bi ak yi nga xamante ni jot na fee wàcc waaw alhamdulilah xanaa am mbégte lool te kontaan ceeg fi ñu ko tàmbalee ak fi ñu ko yemale gone yi nga xam ne dañoo jàngal xuraan ba xam ca lañ ko xam baa ñu mokkal ko seeni parent yëpp teew seen am diam bi yëpp teew alimam saatu bi am mbégte lool ci gaaral ñu li fi nekk noonu tam nu sedduñ ci tomb bi nga doon wax léegi te mooy fas yéene wax tuuti ci éducation wax tuuti ci tarbiya nu jox ñu ci tomb ñu ci jox ñu indi ca loolu moom daal jotaay wax dëgg yàlla am na solo lool ci yi am na solo lool ci jaxlu bi jërëjëf. mooy fàttali mbokk yi waajur yi nga xam ne ñoo seeni doom ci biir kër yi tey di leen bàyyi nasaraan bi donte bon waaye la muy def ci ñoom li daara di def ci ñoom ko gën. waaw ñu ngi dañu rek mooy alxuraan moom du suba déedéet nécessité la far force la kon kii doomam ne ci kër gi muy jàng leneen nit na fexe ba mu jàng alxuraanul karim waxe borom bi tabaaraka taala ndax. bu jàngee ëllëg dana am lu muy def ci moom te itam ku xëy jox sa doom sunu borom bu màggee mu delloo la ko jërëjëf. ndénkaane ju am ci diggante nawet bi ak mbokki jullit yi mu mel ne sant yàlla lañ ko war def waaye nit ñaa ngi jàmb waaw xam nga dañoo xaw a sàggan tuuti ci wàllu wutal ndox mi fu muy jaar ndax ndox moom day am fu muy dem day day day day ñiis am fu muy dem dafay toog. foofu muy toog nag ku dem toog fa dana la fa fekk ndox fi muy dem fa di fa toog ku dem mu toog fi dala fay fekk ku dëkk fi nga xam ne day ngiis nag bu tey bu nappi day ngiis léegi nag mu des ñun mooy suñu état yi ñoo di jiitu ñuy dë ñuy dëkk habitat yi fa ñuy dëkk eh, su ko defee bala ñu bala ñu ñëw ñu yàng ko defar ko ba mu baax a baax boo ko dëkk mu ndax mi ñëwee ngiis jërëjëf jërëjëf yaa oustaz jërëjëf mbokk yi loolu mooy nekk kàddu yi ñu leen di jox di daje incha allah ci yeneen jotaay incha allah ñu leen bëgg a lenn rek ci kàddu ñi nga xamante ni ñooy waajuru ndongo yi ñu taxaw kenn di Serigne Sadikh Seck bëgg a taataan ay kàddoom ana lan la yëg rek ba tax mu jël doomam ji nga xamante ni ku ne xam ne doom daa sax ci xol mën koo indi daal di koy bàyyi ci daara ji ngir mu wattoo fa alxuraan sëñ Sadikh ko yëgee. salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen siyaare bu baax a baax waaw man yàlla dogal na ma bokk ci waajur yi nga xam ne seen am nañ tur tànk ci daara ji sama gone mi ngi tudd Papa Latir nekk ci daara. bi nga xam ne Souleymane Niang moo ko jiite te nekk Kounoune yàlla yëpp dogal na ren ji bokk na ci xale yi nga xamante ne tari nañ waaye lépp loo xam ne séentu woon nañ ko ci daara ji daal indi fi suñuy tut tànkit rëccuwuñ ko te lépp luñ ci yaakaaroon xëj na kawe na sax suñu njort doxinu daara ji ak euh, taxawaay bi lépp wax dëgg yàlla macha allah daara it dañuy wax ni wax dëgg yàlla du neex waaw waaye li ci ëpp solo rek mooy la tax nga jël xale bi dénkaane ko ñetti ñetti ñetti euh, euh, ñetti ñëpp ko séq xale bi jàng bu nangoo jàng kiy jàngale it nangoo jàngale waajur bi jàngulu it nangoo nangoo muñ te maye yitte ñiy jàngale ñu mën a jàngale yaakaar naa ne ci biir bu gàtt la ngay bëgg ci xale bi yàlla mën na ko mën na koo def kon daal rëccu wuñ ci dara ñu sant bu baax a baax a baax ndax ci lu manqué ñeenti at wax dëgg yàlla xale bu ci jàngee wàcc mokkal loolu wax dëgg yàlla xéwal la ñoo ngi sant bu baax daara ji ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bopp looy looy wax yeneen parents d'élèves yi nga xam ne donte sax ñëwaguñ ci daara ji wala indeeguñ ci seen njaboot ana nan nga leen nan nga leen wax ngir ñu mën a indi seeni doom fi nga xam ne mooy ci waaw xam nga dafa sax ci xol te léegi jamono ni mu tëddee xëj na ngay bëgg sa doom jàngee ko bu ko nekkee ci say loxo rawatina alxuraan day day day xaw a jafe daara nag li may wax rek du neex ñett ñi koy séq foog kenn ku nekk dañuy wax ne foog kenn ku nekk nekk gaynde kiy jàngale kiy jàngulu ak ki nga xam ne mooy jàng waaw li ci des nag moom Euh, li ñuy wax doo doo vouloir une chose son contraire loolu du du du mën a nekk ndax nit mënoo mu joxe ko ngir mu jàng ba noppi mu bëgg a yem bu nekkoon say loxo waaw waaw kon kay xëj na bu bu bu bu bu coono dee am ñoom li ci ëpp ci coono ñi nga xam ne ñoo nekk xale yi ci daara ji ñoom ñoom ñoom la ñuy masawu coono boobu ndax xale yi moom ku ne gis na bu ñu nekkee ci say loxo li nga ciy daj waaw waaw waaw ñi moom ah waaw cant gu amul yem waaye rek cant gu am fu mu tàmbale te amul fu mu yem wax dëgg yàlla rëccu wuñ ci dara dara dara dara dara waaw te it li ñu ci bokk na ci ñu gën a neex te mënuñu ko woon bañ a wax mooy tey dinaa ko jël exemple ci Daara Souleymane mooy booloo bi nga xamante ne parents d'élèves yi boole wuñ ko ndax boo jëlee xale loolu maa ngi ciy soññ parents d'élèves yëpp boo jëlee xale yóbbu ci barab gis ne lii manqué na fa wala nangam yéen ñi ko fa yóbbu dangeen di jéem a booloo la fa manqué ngeen def ko fa waaw waaw waaye adduna moom dara mënul matee waaw bu fekkee ne jàng bi moom ñëpp gis nañ ne mi ngi dox te yéexul leneen lu fa bëgg rek parents d'élèves yi bu ñu waxtaanee booloo ñu ñu ñu yombale leen ko lañu bëgg daara ji doxee mën naa doxee noonu te loolu la la lañ am foofu jàngale bi am na transparence daara ji wax dëgg yàlla du ñu def dara te diisoowuñoo parents d'élèves bi ubbil nañ ñu bunt yëpp wax dëgg yàlla moo tax ñu nit ñu ciy jéem suñu kemtalaay kàttan rek waaye daal ñu ngi sant mbooleem ñi ko séq waaw waaw mbooleem ñi ko séq boo limee rek doo dajal waaye képp koo xam ne daal am nga ci mainmise wax dëgg yàlla def nga sa devoir moo tax ñu mën a am résultat yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah waa kay mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon rek ñu taxawaat ak beneen parent d'élève koo xam ne doomam bokk na ci ndongo yi nga xam ne ñu ngi jàngee ci daara ñu bëgg a taataan ay kàddoom ci ban yëg-yëg la am rek ba tax mu mën a jël doomam joxu ko kenn waaye daal di koy jox waa daara ji sëñ Cheikh Tidiane Thioye eh, lay wuyoo ñu taataan ay kàddoom bisimilah Cheikh Tidiane ana loo yëg ba indi sa njaboot ci daara ji. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billah ah, contentement bu rëy rëy laa yëg contentement bu rëy ba ma ñëwee fii gi sama doom tari macha allah li gën ci man bari na naam sax euh, tariwul ñoom dañuy def prestation mais daay ñi ma fekk ñoo fekk ñii tari macha allah set na sama samay doom sama ñaar jarbatam tar ma sama doom rakk yi bii toog ñoom ñaar jàng nañu macha allah wax dëgg yàlla kontaan naa trop dara daal du alxuraanul karim dara du alxuraanul karim sa doom macha allah rabbi parce que dama di ñëw dama ñëw di film dama ñëw di filmer di envoyé photos parce que sama doom sama sama rakk bi topp ci man doomam mi ngi fi mais mu ngi bitim réew moo kii ñoo fa nekk may envoyé di photo ak yooyu fan ñu ñoo jox ma site Daara Koki Daara man ma envoyé ko moom mu ngi suivre foofu direct macha allah fii ba Japon mu ngi suivre direct nee na waaw kontaan kontaan na trop quoi xool fees lool macha allah wallaahi macha allah yeneen yeneen waaju tam ma li leen invité tamit ñoom bu leen euh, amaan tam bu leen alxuraanul karim rëccee bu leen alxuraan karim rëccee ñoom ñu toppaloo ba seen doom mel ñoom dañ leen teel a indi ñu teel a intégré teel a mokkal waaw loolu moom wax dëgg bu loolu bu dee am boo ñëwee fekk sa doom di tari nga xam ne dara du alxuraanul karim macha allah mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon rek euh, ñu ngi ak kenn ci sunu waajur yu jigéen yi mooy mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi ñu bëggoon a taataan ay kàddoom ni mu gisee njàngaleem daara ji ba tax mu doy leen ba ñu nangu fee tàbbal seenu njaboot soxna si ñoo ngi lay nuyu ginnaaw boo nuyoo ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ñëpp nga daal ñuy dëgtal li nga xam ne mooy say géeg rek ci sa digganteeg daara ji. waaw xanaa di sant yàlla rek di julli yàlla na ko yàlla yokk ak ñu ko jiite noonu de sunu doom yëpp fi la jànge samay set sax man lay wax waaye li nu gis de nekkul sax ci sunuy kër ndax as boo amee yar ami teggin am diine lu te dolli ko rek bëgg gis na ko man de keer ba ñuy jëkk a indi samay set fii ah dama damaa ñeewante rek waaye teewul nag njàng mi rek laa bëgg nax alxuraan laa bëgg waaye dama leen a xam yàgg ak borom daara ji xam leen ci yar xam leen ci teggin gone yi bañ fi dikkee ba tey xiifuñu maruñu raflewuñu gone day ñëw sax ndax ku ko jàngal da ko dóor te man dama bëggu set bu ñëwee damay xool seen yaram mosuma gisu taas mosuma gisu leen metti kon yàlla na yàlla fay yàlla mën a yeggale yàlla na yeggal seen yoon lii ngeen jublu yéene ci daara ji yàlla na ko yàlla yeggale musal leen ci cat ak seytaane lafal leen lépp lu yàq man de lii laa gis di ñaanal jàngalekat yi nag ndax ñoo gën a sonn kat ndax yor gone dafa metti waaye ñu yor leen rek yiir leen rek li Amar wax léegi ci póot ak togg dafa metti jigéen ñi ko yor yàlla na yàlla fay jigéen ñi togg di yàlla leen yàlla fay yàlla nañ dund ba yàlla fay leen ko seenu njaboot ndax xam nañ ni seeni doom rek lañu yor bu dee gone yi jigéen ñi dañuy sang ba mu set ñu létt ba mu jekk mosuñoo sollu tiim indi fi mosuñoo tax mosuñoo tiim kon jërëjëf yàlla neen yàlla fay. lan ngay wax sa yeneen mbokk soxna yi nga xam ne am nañ seeni doom yu ñu bëgg ñu ñëw ci daara waaye ñëwanteeg waajur ak doomam rek moo leen di jàpp ba tax ñu jàppee ko lu metti eh, li ma leen di diggal mooy nañu encouragé seen doom te ñëw ndax man mii de duma wax sama bopp waa daara ji xam nañ ma waaye kër ba fi ñëw keroog ba leen fi njagee indi dama waaye keroog ba ñu dikkee dama kontaan ndax gone bu fekkee ne mu waxtoo jotee mu daal di jàpp julli wuti jàkka ji dikk ànd ak yéen kooku looy waxate kon képp koo xam ne bëgg nga lu baax te yéene ci sa doomu jàng dikkal ci daara ji doo si gis loolu naqari doo ko ci dégg ndax ñi ko jiite am nañu yar am nañuy teggin ah fa daara ji soqi koo ñu di leen gërëm di leen sant yàlla na leen yàlla fay ndax lii lépp ñooma ñoom ñi nga xam ne ñoo jàngal borom daara ji ba man lii kon Amady Diop ak ñi mu àndal lu ñu mën ren bu déwénee yàlla ñu mën la ko raw jërëjëf ndax wax ji la kiiwul xam. mbokk yi niñ leen ko waxee woon rek ñu ngi ak ki nga xamante ni mooy jiite soxna yi nga xamante ni ñooy waajuru ndongo yi ñu bëggoon a taataan rek ay kàddoom ci gis-gisam ci daara ji. ba it mu nangoo doon jël ay responsabilités am doon ki nga xam ne mooy jiite waajuru ndongo yu jigéen yi muy soxna Safiatou soxna Safiatou lan nga yëg ak sa kóllëre ak waa daara ji. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara nuyu ñëpp daal ñi suñu cofaay ci daara ji gis nañu seen nekkaay ak ñu yoree suñu njaboot yor lañ yor gu rafet ba tax na ñu jël suñu lépp jox leen. ndax yoon nañu xale yoon bu rafet te yaakaar naa alxuraan ko jël jox ko jox daara ku fa yóbbu sa doom yaakaar naa doo am leen na loo ci am xel ñaar ndax ñu naan xale tumuraanke yàqu ko wàññu ko dara moo tax ñu ne surtout góor nga jël ko yóbbu ko ci daara sama yaakaar day tax nga gën ko xamal àddina day tax nga gën ko xamal àddina loolu tax ñu jël njaboot bi wéer leen ko te tamit ñi teg ko ci ay loxo yu wóor suñuy doom ku leen gis xam ne xiifuñu maruñu boo ñëwee rek accueil biñ nga xam ne xale bu fitam boo ko sonalee soo ñëwee lam ñu njëkk a def mooy daw topp la ndax xale bu ñu egsee am na ci ñu soxla ñun ñoo leen di xëcc taf leen suñu bopp mais lu mu gaaw gaaw dañuy bëgg a débarrassé wu si ñun dem seeni morom booy egg see xool ko ne ko fii neex na li yaay fii neex na kay wallaahi looloo tax ñun tëddee sa xel ñaar ne ko du am xel ñaar ndax ñi ñu leen jox nekk nañ ñu wóor te dalal nañ suñu xel. léeg jigéen ñi dañuy daal yóbbu seen doom ci daara ba tax dañ koy mujj bàyyi seen loxo daara ji waaw daara ji moom li mooy li ma wax rek sànq ñun de fii nekk ñun moom daral nañ suñu xel ndax euh, ni ñu yoree suñu njaboot rek daa dal suñu xel ba tax na ñun man maa fa njëkk a yóbbu sama doom sama doom ba ma ko fa yóbboo sama wujju peccoo nga andi keneen ak keneen at bu nekk dinañ am kuñ fa dugal ndax bu ñu gisoon leneen ci xale yi duñu am fit te jamono gii ñu toll yegg na foo xamante ne jëlul sa doom dugal ko ci daara pert nga ndax yaakaar naa alxuraan toll na foo xamante ne yow boo ko jàngul lépp rek yaakaar naa ñaan nga yàlla sa njaboot yeggalil la te dëgg-dëgg fa yàlla boo xoolee xale yi liñ fi jàng rek dafa sedd xol te day dugg ba sëb xol bi kon ñu ñaan yàlla rek ñu toog ñu ni bañ wàll suñuy njaboot lépp liñ ci def ba dugal leen ci yàlla bu ñu am leen luñ ci réccu te yaakaar naa duñ ko am ndax doom moom boo ko yoree boo toppee bànnee xam tey ëllëg bu wéetee da nga jooy di jooy fu kenn newul te yaakaar naa ne jooy ci ba muy xale bàyyi ba mu màgg nga di ci jooy kon jooy ci ba muy xale moo gën ndax xale moom yaakaar naa tumuranke yàq te day tax mu xam àddina tax fu mu mën a ne mu ne fa boo ko wanee ginnaaw dina xam ne ne man ci li ma nekk ci lu dëggu la te yaakaar naa alxuraan boo juddoo moom lañ njëkk a nodd sa nopp bës boo dëddoo it moom la ñuy mujjee noddu say noonu kon nag dugal sa doom ci alxuraan moom mooy lu ëpp solo bu ko deful de yaa ngi ci erreur sama gis-gis ndax ah, yóbbu daara du leen dem bu njëkk bi rek mooy metti wante weer njëkk yaakaar naa boo ko yóbboo mu dem def weer ak moromam wallaahi boo ñëwee danga naa man xanaa sama doom daa am lu ko def fekk la mu yëg sax alxuraan moo ko sant yàlla bu a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul